Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf ay kàdduk Ousmane Sonko ak coow lu mu jur mbiram Israël moom la yéene kay xëye ni ki tey ji réew mi quotidien xëy ak ñun ci taxawaay bi nga xamante ne ay kuréel yu société civile toll ci fukk ak juróom-ñeent daal nañ ciy taxaw tembe di sàkku ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay mu daal di fexe ba jëlee fi ambassadeur bu Israël ci Ndakaaru waaye tamit dakkal bépp lëkkaloo diggante Sénégal ak Israël moo tax yéenekaay bi jàpp ni Israël ci boppam moom la ñu déclaré patrium non grata ci Sénégal taxawaayub société civile boobee jëmale ko ci Israël moom la bis bi la jour xëyee tamit niki tey ji mu gis ni société civile ci boppam mooy teg pression Bassirou Diomaye Faye ndax gannaaw premier ministre Ousmane Sonko ay organisation yu société civile ñu ngay sàkku tamit ñu daal di fiy jëlee ambassadeur bu Israël ci Ndakaaru ci beneen fànn wa bi di dikk tamit ci coow li nga xamante ne moo juddu gannaaw kàddu yi Ousmane Sonko daal di suñu naata naataango yi di xam ne kon moom njiital Pastef tàmbale naa jot missile yu njëkk bokk na ci bi tukkee ci Birahim Seck njiital Forum Civil mi nga xamante ne nee na lu ñuy xaar ci premier ministre mooy kay saafara jafe-jafe yi nga xamante ne presse bi mu ngi koy dund kàdduk Iliman bu Lex Africa tamit ci biir yéenekaay bi ne ñu nangu benn yoon premier ministre di attaqué ñi di attekat yi waaye tamit presse bi presse bi tamit gàddu coow li ndax ci biir réew mi quotidien SYNPICS di syndicat bi ëmb taskatu xibaar yi ña ngay delloo Ousmane Sonko ci place am Sonko di jot kàddu yi bawoo fu ne moo tax Vox Populi gis ni lii premier ministre di dund jamono ji dafay rek ab bor bi nga xamante ne daf ko leble woon ndax li nga xamante ne doon na ko yàq kii di nguurub Macky Sall moo tax ci biir yéenekaay bi ay politiciens na noone ñi bokk ci société civile di yàq lu mel ni xeme kii di Ousmane Sonko génnub Ousmane Sonko bi jur coow l'observateur mu ngi ciy def jàngat bu yaa ab examen état d'esprit sax la ko duppee yéenekaay groupe Futur Média bi jox ci kàddu ay analyse politologue ñu daal di jàngat li nga xamante ne moo tax ba kàddu yi premier ministre yëkkati ñu bëri di ko ŋàññ lan moo ci lënt-lënt waaye tamit fan la soxee lépp mu ngi ci biir l'observateur ci biir enquête diggante Ousmane Sonko ak presse bi nga xamante ne yàgg naa ñagas dañoo jàpp ni loolu du rek tey yéenekaay bi dikkat na ci li waral coow li taxawaayub Ousmane Sonko ba muy door ca opposition ak li mu daj digganteem ak presse bi tamit jamono ji nga xamante ne yëf yaa ngay métti dëgg ci moom looloo tax ba léegi suñu naataangooy jàpp ngir mur daal du yomb diggante presse bi ak Ousmane Sonko moo ne de luy intérêt Pastef ci boppam Mamadou Sy Albert di analyste politique gis ni mooy ñu fexe ba dakkal xeex bi dox seen diggante ak presse bu Sénégal xeexam déet Walf Quotidien moom lu muy jàngat mooy communication bu Ousmane Sonko ci boppam moo yàgg jur coow yéenekaay bi dikk na sax ci li koy waral ak position yi nga xamante ne yenn saa yi da koy jël te du neex ñu bëri Macky Sall mi ñu dénk poste envoyé ci géew géopolitique gi direct news dikkaat ci tànneef boobe nga xamante ne jur na lool coow ndax ñu bëri ku ci mel ni Aminata Touré dafa jàpp ni njiitu réew ma woon waruta wéy di jiite parti bi di APR ba noppi di liggéeyal kii di njiitu réew mu France yéenekaay bi dénk na ci tamit kàddu kii di Assane si di ab politologue muy sàkku ci Macky Sall ci boppam mu daal di roy ci tànkub Abdoulaye Wade mi nga xamante ne ba mu jógee ci bopp nguur gi bëri na li ñu sàkkoon mu daal di koy def rawatina ci biti réew waaye maître ci boppam dafa lank nationale mi lànk bokk ci commission ad hoc bi nga xamante ne dañu ko samp ngir mu caytu li nga xamante ne moom mooy ay titre ak occupation ci yenn ci ay domaine maritime jàppale ni am na li waral boobule taxawaay source a dañu yëgal tey ni bureau bu assemblée nationale ci boppam li mu xamle mooy ajowul ñuy daal di lëkkaloo gouvernement bi ngir liggéey ci commission boobu te nee ñuy tamit dañuy moytu li ñu duppee conflit d'intérêt ndekete yoo am na ñu doon amee intérêt ci programme de modernisation des daara bi nga xamante ne nguur gi fi moo ko sampoon libération libération dikk na ci mbir mu doywaar bi nga xamante ne moo fa doon xew ab compte bi nga xamante ne moom la ñu doon jëfandikoo ci anam yu jaarul yoon ngir di détourner koppar googe nga xamante ne dañ ko jagleloon daara ci Sénégal compte bi ñu ubbi woon ci turu Pamod nee ñu diggante 2019 ba 2020 lu ëpp juróomi milliards lañ ci dugal te ay Samba Boy ñoo doon détourner koppar googu koppar ci wàllu tàggat yaram tamit réew mi sport dikk na ci yéenekaay bi di xam ne ni ngir jot nag ci Nicolas Jackson faaw xaalis bu bëri daa di génn suñu naata naataango yi yër rapport bi nga xamante ne CIS football moo ko fësal muy wax ci saison 2023 2024 ak valeur marchande bi nga xamante ne yenn ci ay suur africain am nañ ko ñu gis ni kii di attaquant bu Sénégal bi moo ca jiitu Pape Matar Sarr tamit am na ci taxawaay bu mucc ayib ki am taxawaay bu mucc ayib ci jongante Sénégal ak Mauritanie waaye tamit RDC mooy Abdoulaye Seck Stade Quotidien di xam ne ni moom sóoru Maccabi Haifa bi jamono ji tembe mooy yaakaaru défense bu Sénégal. Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñu leen doon may. may seen revue de presse may seen